sant d'abord suñu bokk yi tedd yi initié jataay bi muy noo noo Macky noo Idy Touba lii bu fi xewee dafay wane ne waa dëkk bi ñu ngi commencé ndax booy natt ci démographie maanaam ñu gën a bëri ci Sénégal dëkk bu gën a bëri ci Sénégal Touba dañ ne Touba mooy deuxième grande ville du Sénégal wante boobaa dañuy tëkkale Touba ak région de Dakar région de Dakar mooy département de Dakar département de Pikine Guédiawaye Rufisque ak Kër Massar boo boole moom la ñu tënkale Touba kon bu doon dëkk dëkkale rek Touba mu leen ëpp. ñu ne Touba mooy la deuxième ville primatiale loolu primatialité bu ñu ko waxee mooy ci wàllu koom-koom ak ci wàllu démographie doomu aadama ñu gis ne bu dee ci koom-koomu réew mi ginnaaw dakaar région de Dakar Touba mu ëpp lu muy participer ci koom-koomu Sénégal. ndax gis nga investissement milliard la njiitu réew mi di jël ak équipe di ko def dakaar mën nañu wax BRT bi mën nañu wax TER mën nañu wax ay investissement yu mag a mag a mag a mag ay milliers de milliards def ko Dakar te bu dee Touba mbënd mi paase rek 23 milliards yi président bi waxoon da koy def Sénégal da koy def fii ci Touba ba léegi defagu dara mu leer ñu bu tawaatee mbënn mi dana ñëw nga xool Touba université yi wax na ne deux cent quatre cinq milliards moom la ñuy consommé ci ñetti meeru màggal gi mooy l'axe circulant xaalis bi tourné daanaka mooy ceeru li douane di dugal ci Sénégal ci at mi nga xool li Touba di dugal ci wàllu carburant boo xool ci wàllu téléphone secteur téléphone yi boo bu rawul Dakar statistiques yooyu ñoom duñ ko feeñal mais buñ feeñoo statistique dañuy wane ne dañuy gis ne dakaar Touba ko raw ci wàllu téléphone li muy fay. même Jimbo Nestlé premier client am ci Sénégal Touba secteur yëpp boo demee Touba raw na Dakar mais duñ ko wane parce que bëgguñu waa Touba xam parce que alal réew ñu pare pare pour jox ci Touba. waxuñu Touba en tant que Touba këru dëkku diini mais Touba en tant que dëkk moom ay sénégalais fi dëkk. di contribuer ci koom-koomu réew mi mais njiiti réew mi zappé département bi joxuñu suñu gëdd faalewuñu bu amee soxla daal ñëw ci sëñ bi wax ak moom demaat mbéyum kanam nag borom moo koy fajal boppam lii ñu toll tiñu tey situation bi ñu toll jeunesse su Sénégal moo am occasion pour assurer ëllëgam mooy ñu fexe ñëpp voter massivement ñu gagner coalition wàllu yeewi gagné élection yi ñu créé cohabitation au niveau de l' lan lay jur dana tax ñu voté ay loi ak ay réformes yoo xamante ni dépense yi état bi doon dépense te mun te mënoon a ñàkk lu dul mu koy dépense dafa ay ay politiciens ñu mën ko annuler bu ko defee wàññi train bi état bi dugal ko ci lekk yi dugal ko ci naan gi dugal ko ci faj mi dugal ko ci sécurité bi dugal ko ci njàng mi. fi may daane rek bu yàggut état bi lem ne 330 milliards ba xaalis dugg si na. 330 milliards yi njiiti réew mi nee na daf ciy jënd ay immeuble yoo xamante fa la ñuy def ministères yi du du urgence ndax ministères yi fañ nekkoon ay bâtiment bat yi ëpp bâtiment état la kon du urgence ñu jëlee leen fa ñu ne 330 milliards yi li ci des dañ ciy fay seen participation yi autoroute ñu war a defar defar ay autoroute alors que ñun ñi nga xamante ñooy deuxième participant suñuy tali baaxut bu bu tawee mu inondé te Touba Carrefour la boo ñu Touba en tant que dëkku diine mais Touba en tant que dëkk xam ay sénégalais fi dëkk pour muy leer beneen bi ci des ñu ne beneen moitié bi dañ koy dugal ci poor bu ñuy def ndaayaan te la ci gën a doy waar mooy dans sept ans la ñuy fay première tranche bi cinquante cinq milliards yu njëkk yi dans sept ans la ñu koy fay kon ñoom seen régime dana jeex lu yàgg askan wi door a commencé fay deuxième tranche beneen cinquante cinq milliards dañ ko fay dans dix ans kon danañ toogaat fukki at door a commencé bay beneen tranche bi deux cent vingt milliards dañ ko fay dans quinze ans kon ñoom li ñuy leb di ko di ko jël di ko def ci ay projets yu mag yoo xam ne danañ ci am ay commission am ci xaalis askan wi di gën a ndool di gën a sonn te buñ koy fay duñ ko fekk ñoom danañ la fekk seen régime jeex ñu ne ci yeneen condition ñun askan ñu ko kon dund gu métti yi occasion la pour que jeunesse bépp jóg taxaw xëppi seeni bët voté massivement pour que coalition wàllu yeewi gagné renverser la tendance mu am cohabitation ñu liggéey yay réforme pour aveniru u Sénégal kon nag sëñ Xaadim monsieur sëñ Diagne normal ñu leen di félicité di leen encouragé di félicité mbooleem jeune bu nekk ci département bi ak ci Sénégal mm-hmm. pour ñu xam ne enjeu bi intérêt ndaw yi la pour un futur meilleur